Samba dikkewul ñi ne ne mu ngi fi waaye dañoo dem xob bi ñoom ñoo am xob bi wax la rek waaye moom moom gën nañ ci daal Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi noonu ak seen ak jàppale ci teewaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha Moussa Abdoul Karam bismillah est-ce que mënta nañ ko mu jàkkaarloo liggéey. maanaam boo ngeen may ko mu xool bu diir. bi santoon ko ko fii ci deqali tey liggéey baa ngi mat na yegg na mat na yegg na waaw maire bi léegi nii suñu taal rek ah, yal na yàlla tin ci yow waaye noonu it noo ngi tin nu ci yow loolu moo doon liggéey bi wala sëñ Blaat mi la ko waxoon yàlla dogal nag liggéey bi àgg na sëñ Fallou ngi nii yàlla na sëñ Mourtala ñëw na njaboot yi ñu mandali ñu ngi nii noo ngi nii waaw dégluwuñu kenn ku dul yow waaw kenn yow rek ma yow rek loolu daal laa bëggoon a wax yow eh, sant nga nu ko yàlla dogal bi koy sant nga roof nu lu tax nu man ko def def nañu ko eh, santu sëñ Tuuba nag lu ne da ciy dugg taalibe yi dugg si nañu ci mbokk yi ñenn ñi dugg si nañ ci ba nga xam ne bu doon lu ma téeñu woon it dafa woyof kon maa ngi sant le taalibe yi yëpp eh, sëriñ Tuuba ci yow yow mi ko jox de man de seetlatoo ma dara ci ah, man sëñ bi rek lay wut waaw xooluma dul sëñ bi lu sëñ bi néew doo ma ci soxla waaw te doy nga ma doy goo xam ne nii wóor na ma ne mënuma ah, dëgg dëgg li ne ci sama xol ma génne ko waaw dama koy bàyyi rek ak Serigne Touba ak Serigne Touba mi la mi la mi jàppal daal kii daal moom njur luñ teg fële la aw semmiñ ñëw ci gàcceguñ ko ci bant bi sax ba def ko semmiñ ñu def ko ci di ko dóor defuma dara lépp yow la caabi caabi yaa ngi maam mu ne mu ngi liggéey bi ngërëmal sëñ bi liggéey ngërëm bu mu am rek a am rek. mu ne képp mi ngi ñaan mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ bi képp ku liggéeyal sëriñ bi ngërëm lu mës a am mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Tuubaa yàlla defal la ko. amiin. en doy na sëkk amatul la ah, bu ñu faatu woon tey it baax yàlla na suñu te te te sorewul fañ ko bëggee. mu ne te yéene yi yéene ji rëy na lool te sorewul fañ ko bëggee. mu ne loolu rek la soxla wu dara sëriñ bi rek lañ soxla. mu ne dañu ànd dem sëriñ bi rek. mu ne jërëjëf Mbacke. mu ne jërëjëf it rek lañ mën a wax. mu ne lépp def nga ko. mu ne jëf nga ko wax nga ko. ñee bàyyi ngërëmal sëriñ bi rek mu ne lépp li may ngërëmal sëriñ bi mu ne wax nga ko def nga ko mu ne jërëjëf Mbacke barakallah bu bu yomal xam bu doon sedd nii bu ñu jàppoon ni lay sedd rek alhamdulilah rabbil alamin bu ñu fekk ci tool yi suñu fekk ci tool yi jaajëf ji rek jaajëf waaw baara jërëjëf mu ne Cheikh Modou Fadal mii fa tabaarakallaa mu ne lii lépp moo ñu ko may moo njëkkee ndigal li moo njëkk am ndigal li te boobu yàgg na mu ne fekk nañ ko ba tàyyi moom képp mu nekk fi mu tax taxawaay bu rafet bii mu fi taxaw mu ne kon nag mu ne ñu ngi sant Serigne Fall bu baax baax di ko gërëm. mu ne di ko feddali wëllër gi ñu bokk. mu ne fas yéene koo dëgëral bu baax. fasiyene ko gëna sam bu baax. mu ne itam. te di ko ñaanal. mu ne ndigal limu amoon. ba ñëw fii. nekk fi lim fi nekk. mu ne yàlla defal ko ci barkeb sëriñ bi moo xam ni mu ko bëggee waaye yàlla moo ko gën a xam boppam ñoo ngi koy ñaan mu defal ko kon nam ko bëggee ba taxawaay bu rafet bii mu fi taxaw mu taxaw ko fi nekkee ko fi ba njaboot sëñ Tuubaa gépp di ko fekk mu nekk fi rek mu ne kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu koy sante yàlla di ko sant Serigne Touba di ko sant di ko sant Serigne Mourtala mi ko joxoon ndigal li di ko sant ko gërëm fa tabaarakallaa laa Mbacke mu ne ak yegg ak yeggale rek Mbacke jërëjëf Mbacke mu ne fii yaa fi nekkal sëriñ bi nekkal ko fi ñun ñëpp jërëjëf Mbacke yàggal yàggal rek sëñ tàllal seen